asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Sëriñ Abdul Quddus ci la ñuy waxe ci wetu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Sëriñ Xaadim ibnu Cheikh Mouhamadul Amin borom bis bi Serigne Bassirou demee ci xalifa ba Serigne Abbas te xalifa Cheikh Ibrahima Faty ànd ak Serigne Cheikh Assou Faye daf koo boole ak Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Serigne Abdou Khoudous Serigne Abdou Khoudous wax Serigne Khadim mii di doomu Serigne Abbas xalifatul Daaru Muxti ne ko bu ñu ñëwee fii ci Ndakaaru ci man njaboot gaa ngi fi dañu xool mu gën a rafetee ci wetu Cheikh Mouhamadou Bachir wax naa ko bii ci téléphone ni ko bu mu rii yaa amaru bi tadrij dundu doomu aadama après jour évolution dafa xew lu nekk di yokku kon taarif yi nga xamante ne bi fan yi yëpp maa ngi koy def ci Cheikh Mouhamadul Amin pour bis bala du tay waaye nu mel itam du jaaxal kenn waaw ndax wala fii ñooy wax ni ngir ku tedd ki moom amul tànki kanam tànki kanam rek la am te li Serigne Mountakha wane ci ci Massalikul Jinaan ci fan yooyu loolu leeral na lépp lu ciy tegee lu ne dafa war a gën a yéeme ndax continuité mbirum ku tedd ki moo demee noonu ba na bu dee wàllu nag Serigne Mouhamadul Amin Bara bu ñu nekk li doonte at yu bariwul ci nekk fii itam bu ñu nekk li nga xam ne ku tedd ki bi muy séddale léppam ñéppam itam ab cëram ak fisa la kenn du ko nattam bu ko defee kenn du ni daawu fi teewe nii xam nga loolu kenn du ko wax ku compréhensif doo wax ni man lu tax ma teewe fi nii tey te daaw ma fi teewe nii ku compréhensif du ko wax ndax adduna dafay dox lu nekk ak waxtoom dañoo nekk ci jamono yi avancement jamono yi évolution jamono yi révolution pacifique ci la ñu nekk loolu moo tax nag li xew ci ku tedd gi ci rafetal gi xewee nu ak ci fu ne ak ci ku ne moo tax muy demee nii muy dem bu nu ko tedd gi yóbboo ci bis baa jàmm nu mu gën a demee nu mu daawul demee rek ñu xam ni <laughs> ni mu demee moo tax li ma wax nii rek bi ko tedd ci moom amul tànki gannaaw tànki kanam la moom mi ma ko jëf lu am solo la te man xamila saalihan fa li nafsihi du toxu radiyallahu anhu al imaamul akbar Serigne Abdou Khadir dafa am yi du ma ko yónnee toog lu yàgg demuma fa ma ñëw di ko ziar man ma def lu baax de baax na loolu waaye def ko ci ku baax la gën ñooñu dañoo xam ñoom ñooy ñan bu tedd ki bi mu bi kenn xamul lu mu doon itam ñi mu fi indi di leen jabootoo ñooñu dafa am lu mu leen doonale ci démb soogul boo tax bi ñëwee fii mu leen di indi par biñu wa fi wa waa lañu won te ñu démb ñu lañ bokkon baka tamé tàmbalee mohammed mustafa ci soxna may mu nag amu ci kenn ko xamanteni bi nit nga jëmi nit lañu yor way doonu ñu ndax duma ko ma gëmu ndax ki leen fi indi mo ne Adama du maamam maa ko wax ki leen fi indi mo ne Adama du mamam kon ñi muy indi ñaan ay doom lañu lu ñi doon même bu adama bu nangoo adama doon sen maamit munu ñoy yaba min ñi te jàng ngeen tilka rusulu fadana baadum ala ba yonent yonenti sax dañu ëppante martaba asama ngi ci des yàlla nu ko tedd ki baxé tolérance ci jufi yalla ci doomu adama mo xam ku gatt ki mo xam ku gudd ki mo xam ci ti mo xam ki sol muy ko di lool la ñuy ñaan ku tëdd ki mu defaral nu xol yi ndax xol rek mooy dara bu baaxee rek bu baax yéen yéenee borom xam-xam yi nun ñooy jaahil yi waaye teewul ñuy settantal bayyana lil alim wal xabiru tabyina man tadbiruhu tadbiru loolu ñu ko tàgg bu baax moom yi ma ni ko on verra si kanam a wuti bët bu la nangul woon bi ci weesu kon bi du tàmbalee ni bu tàmbalee ni c'est parce que dafa nangu yu weesu dama ya, ya, ya, nangu ko nak moy li am solo ki nga xamni dama ko woo léegi téléphone di professeur jëmmooy mu ne ma ngi tolo sises ma ne ko jàddal wa mom mo may pilotel la révolution pacifique du Sénégal et du monde en commençant par la religion. Par la religion musulmane d'une part, mais d'autres, par d'autres religions, d'autre part. mu war a nekk ay étapes ñetti weer képp laay révolution musulmane bi gis une taalif yi may def ci ku tedd une xale de ni ñu koy def ci net bi waaw li ma leer mooy ku ci mokkal benn képp da boo moo xam ci yàlla la ko bind moo ci yonent bi moo xam ci alquran moo tax mani bamba wéetal yàlla ba mu kennal liggéeyal yonent bi ba mu ko bi mu rabin lana faqal juma xusta lana mu jëla jeysin wa amal ko waa du sama yoon loolu moo tax foofu daal laay mën a Serigne Bara du ma ko mën a wax fii dama koy résumé ndax ay taalibe yu bari yu bokkul waaw waaye lenn képp laa leen di nett yi ndax taalibe moom dama koy off ba bis ba waaye faw na nett yi leen man sama maam ma rey ma sëy sama maam ma rey ma sëy moom la Serigne Bara jox jaaro ni ko fii ak ngi ci sa malakal moo ci jël sa mu dund téeméeri at ak ak benn il a fallu que ñu dindi jaaroo ba malakal moo ci soog a mën a jël ruu ga loolu rek laa leen wax ba bis.